demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàkk ne xiim bismillahi rahmaani rahim sëñ bi mm, jóge ci sëñ Ahmadul Maxtaar mu tànn ay doom yabal nu ci njabootu sëriñ Tuubaa yi ci màggal gi muy bëgg a def ci bii di ñëw mm. yàlla def na màggal gi ren day dajeek téeméeri at yi te xam na ne màggal gi màggal Sëriñ Tuubaa la mu ne woon comme que dafa am beneen cachet bu bees ci màggal ndax téeméeri at yi mi dajal bëggoon na njabootu Sëriñ Tuubaa gépp yëg ko ànd ceeg moom ñaanal ko ba li ñu ci bëgg ca saare ci lu bari ci sëñ bi ba lu bari sëñ bi lépp lu bari xam nañ ko ci moom waaye am na yu bari yu des ñu xamul ci moom bu ko profité ci màggal gi nag def ay conférence yu bari ak i panel yu bari pour ay borom xam-xam yoo xam ni tànn nañ leen muy ci biir murit gi ak ñeneen ñoo xam ne dañu murit sax ay professeur yëpp daal ñu am thème yu bari ñu tànn yoo xam ne bëgg ko waxtaan sëñ bi loolu nag moo moo waral suñ ñëw fii ñun ñun ñi ñëpp sa yaakaar naa sa doom yi fi nekk yëpp xam nga leen ñëwoon nag sàkku sa ñaan ak say xalaat ci ci turu sëñ sëriñ bi nag niñ ko xamee lim fi nekk lépp liggéey bi mu fi liggéey bépp dara desu ci lépp mat na ba am ngërëmul boroom ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon liggéeyal dëkk bii nag di Touba di dëkk bu mu bëggoon lool waaye suñ boroom natt ko ci itam ba ni ñu ko sëñ Blaat nettali te ñëpp dégg ko mooy juróom-ñaari rek la fi am mu génne ko fi tukki yim tukki yëpp it ak fi ñu ko yóbbu fépp it wax ju wax rek buy tudd Touba dana wane ne dëkku boppam la ndax boppam rek la ko moomale mu amoon projet bu magit ci dëkk bi ndax Matlabul Fawzayni projet la boo xam ne bi mu koy def eh, booba dara nekkul ci dëkk bi Euh, fi mu nekkoon di ko def bi muy ñaan ku fa nekkoon itam da ngay jàpp ne boo dul borom gis-gis da ngay jàpp ne ak loo am am xam-xam da ngay jàpp ne sëñ bi lii muy wax du lu mën a ne ci jamono jooja euh, bi mu liggéeyee nag ba suñ boroom indi ko njaareem mu dénkaane itam ak njabootam ci njiitul Cheikh Mamadou Moustapha ak i rakkam ak yoon wi ngir ñu indi ko waxtu jamono soppi ko loolu itam mu am lu mu leen ci diggoon ci bu amee bu ñëwee tubaa te xat demut lépp lu ñu sumbati lu ne dana sotti ba ne coleet su amut nag coono rek kay am ndax moom loolu du ko wàññi dara njaboot gi nag ci njiitu sëñ Modou ak seen yitte fexe ba ndigalu sëriñ boobee ni ñu daan defee ndigalam ci waxtu worotee ñu ñu defee ko noonu boobaak léegi nag di ci eh, ci wam mu muharram bi ñu jëm nag moo tolloog wam tasin muy téeméeri at sëñ bi nag ñu ma waxee léegi kilifa yi wax ko moo di ab liggéeyam lépp rafet na defar na aw nit ñoo xam ne mën nañoo yor jamono ñu mën nañoo jiite jamono loolu nag lañ bëgg a wone ci ndigalu sëñ Ahmadu ci ndigalu luñ jële ci sëñ Muntaxa ñu wan àdduna rek ne sëriñ bi kat liggéey ne li mu war a liggéey lépp waaye ñu fi bàyyi ñëpp li dale sëñ Mourou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Had sëñ Abdoul Khadir sëñ Saliou Cheikh Mamadou Amine sëñ Sidi Mokhtar ba sëñ Muntaxa mi ak njabootuk sëñ bi yëpp kenn ku nekk liggéey nga liggéey boo xam ne buñ mën a teg bët la ci euh, domaine yu wuute sëñ ama wax nag ne loolu lépp nag suñ ko bëggee waxtaanee mënuñu koo def ci bisu màggal bi kon nañ sàkk yeneen bis moo xam ci réew mi la wala bitim réew nuñ fuñ ko mën a defee fexe daal ba tasa wax euh, jëf yooyu ci domaine yu wuute yooyu lu ci nañu waxtaan ci te tànn ay borom xam-xam yu mën a waxtaan ñu waxtaan ca loolu nag li sëñ Cheikh Aziz wax sëñ bi waxoon nag ne nañ ñëw ci yéen ndax xam nañ euh, taxawaay bi nga am ci yoon wi mu yàgg leen a ñor ci wàllu xam-xam ak gëstu ngeen daj ci lu ne ba doon bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ne ay delluwaay lañ ci sëriñ bi ak ci yoon wi ci ci anam yu yëpp nag ci anam yëpp euh, sëñ bi wax nag ne loolu euh, dana am solo ñu ñëw fi yéen taatan ci yéen ay kàddu ngir loolu mu bëgg a tasaare lépp de dara génnu ci sëñ bi ak wane ko ndax euh, sëñ bi moom ni ñuy wax rek kenn kenn kenn kenn bañu ko xëy na maanaam mënees na ko umpale nag. kon nag ñi fi nekk ñoo war taxaw ci nu nit ñi xame sëñ bi ndax bëgg ko ndax moom zanaf en bi laa dara lin la maanaam moom da moom moom njariñ la lu àndut ak lor hmm. lu mu doon ci àdduna nag mën naa am njariñ mën naa am waaye sëñ bi moom njariñ la kon nag eh, bu ko ñëpp xamee eh, danañ ko bëgg te suñ ko bëggee dana njariñ waaw kon loolu daal moo doon moo doon tànk yi eh, di ñaan itam nga ñaan ci bu baax a baax ndax ab défi la boo xam ne adduna soxla na ko te itam eh, lu baax yombut waaw te fu ay nit ñu baax jóge ngir bëgg lu baax xëy na eh, góor mag moom dana gembu fas yéene eh, lu mu gàllankoor donte sëñ jëflante naa ak moom rek ngeen ñaan ci daal ba ni ko kilifa yi bëggee ci wane sëñ bi ak tasaare ko ñu amee ca ñu amee ko ci noonu te lépp na ngërëmam rek lañ ci so lañ ci sàkku wala barakaatu ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Ahmadul Moxtaar suñ mag ju baax ju nga xam ne moo leen fi yebal di ko siyaare bu baax a baax a baax a baax ci lu rëy lii nga xam ne moom lañuy waajal te di ko waajalal yoon wi yëpp ndax mbirum yoon wi la ndax mbirum sëñ bi la mm-hmm. te amuñ loolu sëñ bi mm-hmm. te ginnaaw yàlla taw feexal nañu ba ñu fekkee téeméeri atam mm-hmm. war nañoo sant yàlla bu baax te it day mel ne màndarga la nag moo xam ne war nañoo soññ war nañoo yokk suñu itte ci ñi ngir ñu ngir xamle ko ba ñëpp xam ko loola kon ndax juróom fukki at màggaloon nañ ko bañ ci tolloo muy 77 biñ te fii nag ngeen indi date bi nga xam ne sax moo dëpp bi nga xam ne mooy la sëñ bi wàññee mooy mooy weer weer yi tamxarit yi muy téeméeri atam loolu moom muy lu réeréer yi sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax ñi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm te liñ ci yéene mm-hmm. sëñ Ahmadu yéene ko ci mm-hmm. ak mbooleem njaboot gi mu ko ànd gépp mm-hmm. muy mbirum sëñ bi gën cee fese ñu gën koo xam yàlla na ko ci yàlla def ndax sëñ bi moom loo gën a xam ci mbiram gën a jariñu lu ni toll lu ko réew mi gën a xamit réew mi gën a jariñu lu ko jullit ñi gën a xamit jullit ñi gën a jariñu te moom njariñul jullit ñi la la doon ñaan waxtu wu damaa jëlale ñi ko aji ci moom waaye waxtu wu ne mi ngi naan najji ayaalal Mustafa baada salah maa salaamin min idaahum alxula yasir lahum bihi bi la def muy ak njabootu mu ñaanal leen ñëpp da yàlla musal leen ci fexem noonu lu ñuy wut lu ñu mu jàppandi la kon kooku xam nga ne fàttiwul njaboot njaboot wax feneen nahnu ayaalu wal ayaalu ajdaru bi an bi xayrin yandu mm-hmm. ñun ñooy ñooy njaboot gi te njaboot boo yoree yiw wu raar wu néew mm-hmm. njaboot nga ko war a mm-hmm. kon fàggul da fàggu na lu mat a fàgg kon bis bii nga xam ne moom lañ koy fàttalikoo na ngeen ko yaatal bu baax ni te ñi ciy waxtaan nañ doon ñu xam sëñ bi rek ba mën koo leeral sëñ moom lépp loo xam ne si ki ko wax gëstu na ko mm-hmm. te teg ko fu wér mm-hmm. nopp bu duggee ci nopp ci xol jëm waaye dugg ci nopp bi génn ci bi lépp loo xam ne am njàngaleem la mm-hmm. loo ci leeral bu duggee ci ci ci nopp ci xol la jëm loolu wér ne moo ko wax bu duggee ci nopp boo ko jotlee bu duggee ci nopp ci xol la jëm kon ndax léppam dafa wér léppam loo ñuy fexe da cee lépp yàlla la ko jëflanteel liggéeyal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal ko yàlla ñoom ba muy dénkaane ñoom la dénkoon moo tax noonu nga ko waxe nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa diatu dëkkam bii ak diineem jii ak waa këram ñii ak njabootam gii ñëpp maase naa ko teg ci loxol yàlla yàlla mu fi dul jóg kooku nag wootu na ko ci ndax bi si bi ñu indi sëñ bi Tuubaa gii kat booba kër yi mën nañ ko wàññi booba de boo boo ne daaru minam ne leew na ne mbàmpa na ne kër sëñ ma sàmm boo dëkk bi daal day daal jeex daf fu ci ne ay kër la sax yoo xam ne sëñ bi tànn ñi fi ne mm-hmm. yabal leen dem leen ni ma ci sama dëkk ba mm-hmm. waaye boobu dëkk bi xumbaay bépp njaarim la moo xam bu waaye Tuubaa moo xam mm-hmm. bëgg sëñ moo doon taa tànn rek mm, léeg mu set ci waa kër ci donga yi rek mooy ko ñëw ci ñuy ñëw di dëkk di dëkk moo tax bi ñu koy indi Tuubaa ñu ko fekkee sax bëriwul mm. te te te bii ñëw tax koo guddee kon sëñ bi noon la doon dunde dundale noonu la doon waajale dëkkam bii ndax lu bari daana wax ne maa ngi koy bëgg indi ci dëkk waaye dama bañ ñi yàq jiituma fa damay nekk ba ñu ba ñu ci dëkk ba boo nag nit ñi xamuñ gi muy wax waaw moo tax xéewal yépp boo gisee ci madul foo siin sax bi muy naan wam nun xalal ahli la nga xam ne kon xam na ne boo du ko fekk bi maa in jaari waaw <laughs> xalal ahli la <laughs> ndox muy daw kon xam na xam na ne alal ahli la wax waaw xam ne loolu gannaawam lay ñëw li doon sàkku lépp xam na waxtoo mi ñëw xam na it wax waa ñi ñi koy jariñoo kon li mat def mooy e, ngeen góorlu ci borom xam-xam yi ko mat yëg yëpp bu leen ci gàttal ñi ko war a yëg yëpp nañ ko yëg ndax biñ ko fi njëkkee def ñu bari ci lañ xame sëñ bi ba moo leen mooy seenu sababu ñu tàbbi ci yoon wi ndax njàngale mu wér lañ leen ci jàng ndax sëñ bi moom nee na moom soxlawuñ soxlawut ko ko propagande ndax eh, ki may wooteel am na am fu mu mas a dem mm-hmm. am kuy wax ne ñëw leen jébbaloo ñëw leen jébb sëñ bi am na kooku wax ne ku na bàyyi ni wax mm-hmm. man ki may wooteel a gën a jot baat kooku mm-hmm. mu yàlla kon moom waaw waaye nag mbiram kuñ ko leeral mu tàbbi soxal te comme tàbbi soxal nga jariñu te yéene nañ njariñ ñëpp kon na ngeen ko fexe ba yaatal ko ñu liñ ci war a wax ñu wax ko luñ ci war mat def ñu def ko ngeen xam ne moom lu mu ku gudd fan da nga ci teg sa bët loolu moom ñu sama turando suñu wul sa lu ma wër ne sëñ bee wax moom la li ma teg sama bët li ma wér ne sëñ bee wax te gisaguma ko laagan doy loo ci waaw waaw kon kon nañ roy ci loolu xam ne ñoom dañoo xamoon sëñ bi jaaxle musuñu ko am ndax xam nañ ne sëñ bee yoral boppam mbir mi moo tax musuñoo jaaxle sëñ Moussa bi toog yëf yi jafe na lool waaye nee na musta jaaxle ndax wóor na ko ne nee na sëñ bee yoral boppam yoon lu mat a def rek moo lay sagal rek boo ciy jëm rek mu daal di ubbil mu daal mu sotti kon nag nañ góorgóorlu bu baax ci bis bi góorgóorlu bu baax ci yaatal ko góor góorgóorlu bu baax ci fexe ba ñu xamee ci ci sëñ bi lu bari luñ ñu xamee utoon waaw ndax moom kat bind na mag ñi ñu baree bari ñu wér ci mag ñi bind nañ moom sëñ bi bind na ci xasay bind na ci loxoom lu mat a bind jëf na it ñu gis kon daraam dara am ci taarixam xanaa lu agseegul rek waaye dara dara am wërta réer te du mën a réer it waaw waaw kon nag yàlla na nu yàlla dimbali ñu am tawféex yi di gën a am ci moom positif rek di gën a di gën a dimbali nit ñi it ba ñëpp mën cee jariñ ndax sëñ Abdou Xaadir dañ ma sëñ Faatu toog ñu naan ko diw dafa dafa dafa ñàkk jublu sëñ bi mu ne dee tuub ko loolu kenn du ko wax da wax daa umpali sëñ bi daa umpale sëñ bi waaye sëñ bi kooku umpale njariñal kese la lu ànd ak lor kooku umpale daal koy daal koy bëgg <laughs> kon sëñ bi mel na ne koo ko leeral bam leer ko rek mu mu bëgg te bu ko bëggee rek daal daal di jariñ te moom li mu yéene mooy ñëpp jariñ njariñ la lu ànd ak lor njariñ lu ànd ak nag kuñ ko leeral rek saxal na waaw kon nag yàlla na ci yàlla àggale bég nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax euh, liggéey bi liñ ci bëggoon mooy lii rek mu wéy di gën a jëm kanam lu mujj dàq te loolu fa te fàggu na ko <laughs> ndax ku fàttali ku fàttaliku suñu wursaa di toog de boo ni jamono ji meloon boo ko laajee ci mag ñi ba xam taarix bi booba wute naag tey lool metti woon na lool te waaye nag lu mujj ñëw rek gën a yaatu ñoom xam nañ ne leen lu leen bi sant rek mm-hmm. moo tax bi mu leen sant jumaa ji mm-hmm. tabax bëgg a engagé jumaa ji nii mm-hmm. te dëkk ba nga koy def amul ndox nga xam ne eh, ndox ma maanaam dañuy rootaan nga bëgg a ñemee jumaa ji nii te te dencoob xaalis loolu ngëm ngëm moo ko def ak ak booloo ehm, ak solidarité loolu na kon mm, moom mu àggale yoonu murit fu mu àgg yàlla na ci yàlla gën a dimbali maa ngi leen di gërëm di leen sant di ko fa yéene ànd ak yéen bu baax a baax a baax a baax te di ci bëgg bu baax a baax a baax a baax ndax eh, lu luy luy gën a luy gën a jëmmal sëñ bi la te sëñ bi moom lu mbi nit nit yàlla yi njëkk yeeg yañ xamoon woo lu nit rëy rëy may boo doxee téeméeri rek sa mbir daana tàmbali li mel na mel ne luy wàññi quoi di waaye moom bi mu amee téeméeri at ci la gën a yees ci la gën a yokk waaw ñu bari sax gàtt na ci moom boo xam ne boo leen bu ngeen leen ko wax nii sax dañu yaakaar ne war a guta mat loolu ndax ndax ndax ni mbir muy màgge ak ni muy doxe waaw ak fas-fas yi ni muy yokko waaw kon nag eh, ku ku yàlla beral loxo la leeralal nit ñi bu baax a baax a baax li ma leer ci ci li ngeen di def ci Ndakaar ak ci li ngeen def ci luga lépp mm-hmm. ku ne sax mm-hmm. jaar fa jaar fa rek ci ci liggéey bi mm-hmm. ci ci lay wane mbirum sëñ bi la ndax fu ci ne sëñ bi ba mu fay jaar metti na waaw ba mu fay jaar jëm Ndar bi tar na waaw ñëpp fa jàq am na mag am na mag ñoo xam ne dañoo dox topp ci yoonu saxaar yi rek bàgg Ndar ndax jaaxle ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mii ci la woon affaire dëw si noonu la def tof tofraay bi rek ndeysaan daa jaaxal moom nettali na ko bopp mm-hmm. ida dakartu dalika al wa dalika al wa subota mm-hmm. taarat ila al jihaadi bil nafsi walakin dabba rek la ma sa waxee mm-hmm. moo fàttali ko tartar ga ak saxal gañ ma fa saxaloon bind na wa subota wa tasbita tasbita moo ñu toog loola fenn subootaa mooy nga sax fenn rek ñu toog loolu foo mënut a jóg ndeysaan nee na bu fàttalikoo loolu day bëgg a jóg jihaat ci xeej waaye fu ma koy bëgg a defee yonent bi dàkk ma ne ëpp na de li koy fay li gën a gën a a gën a ba ci njaarim gi ngeen mujj it raamoo ma siiri ilaa jurbel la daal la sasi law aayenoo sirra ma fi sir fi raamoo bi ma tubaab bi jigee jolof ne nañ ma yóbbu njaareem ñoom bu ñu xamoon mbóot mi ni ci yóbbu ma njaareem duñ ko def waaw ci la ci la yoon wi gën a yokkoo ñi ko ñi ko doon def ci la seeni pexe yoo xame ci lañ tàpp tàmbali di xëccoo ci seen biir di seeti dinañu waaye fale mbirum sëñ bi waaw te bu bu fekkoon nekk na fi Thiène mm-hmm. kon maanaam bu bu bu wàcc kon fala wàccib liggéey mm-hmm. kon andi ko fi dana jafe lool waaye gis nga yàlla <laughs> <laughs> kon nag jërëjëf euh, euh, jërëjëf wasal lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin wasal lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا damam nga umpu na mindeef te um na boppub kuy mindeef ku dul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne